asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 17 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi moo xam sunu lamb la journal record wala les échos ku nekk tey xëy nga ak ay xibaaru làmb bu dee yëglikaay bii nga xam ne nag moo di sunu làmb la moom ka xëy ngar daa jox ko tey mooy Gaston Mbengue mi ngeen xam mu nekk promoteur waaye nekk itam ko yàgg lool ci làmb gas nag la mu xëy xam le daal ne li leer ba leer làmb ji moom wàllum hypocrisie maanaam ay naafeq dafay bari moom loolu la jàpp lii daal mooy ay waxam ne na looloo fees làmb ji dell dell del ndax nag jàpp na ne mbirum Alioune Sarr mi ñu coog arbitre yi daa jàpp ne gisu ci lu jar coow la ca des nee na Alioune Sarr moom bis bu ñu waxee ba mu dem bàyyi lamb ji bu këroogee moom lamb ji dina am ay jafe-jafe yoo xam ne nii deesul xam fees koy lijjantee loolu may waxee ki nga xam ne moo di Gaston arbitre tamit jàpp na ne lii nga xam ne moom la ñu def day daa jàpp ne du lu jaadu tey sax waru ko na demee nii ne na daal li leer ba leer moom gas Mbengue moom jàpp na ne mbir yi moom du sax nii la war a demee waaye jàpp na ne nag li am ba des daal xëy na moom wax nag mëneesoon na koo def waaye jëru ko nag mu yegg fenn fi nga xam ne nii fa la ñu yóbbu affaire yi tey ba mu jur li nga xam ne nii jur na ko waaye jàpp na ne kii di Matar Ba moom li leer ba ah moom daal li am solo xëy na moom nekk nit koo xam ne du ku rëy xëy na kon xalaates na ci moom mbir ya mu nekk ki nga xam ne moo koy réglé ka nga xam ne nag ci arbitre yooyu la bokk disitor moom la mu xëy xam ne day mu ngay wax ay secret yoo xam ne yu doy waar la ndax jàpp na ne tafaagee baa booy ba nga xam ne moom la soufflé woon ca Demba Diop ca seen combat ba nga xam ne moo doon revanche ba daal jàpp na ne kere day lu ne mënoon na ko caa fekk ndax ne na ba muy ñibbi sax dañ ko escorté dal di ko yóbbu ndax la nga xam ne nii moom la jëloon ay décision kere atte ko ne baabooy daan na tafaa géeñ Sitor moo xëy di wax combat tey seen Bombardier tamit moom la woon Sitor ne nag bis boobu itam ne na dajee maanaam combat ba am na jël de ñoom ñaar am na ku ca daan ba tey Sitor mooy wax keneen koo xam ne ni moom gis nañ ko ci yëgle lekkaay bi di sunu làmb ñu nuy xamal ne nag jóge na États-Unis ñëw ci réew mi muy Modou Xarañ Lo roi des arènes ba ca parcelle daal ñibbisi na ci réew mi nga xam ne fi la nu ne muy Sénégal keneen koo xam ne ni moom réew mi nu ne fi la bëree bërki dem ba daan muy Bébé Diène mu nga xëy nag di wax ay bëgg-bëggam nee daal li mu bëgg mooy dem ca kaw a kaw a kaw ndax nag nee na lit simple bi boo xoolee bëreetul loo xam ne ni lu mu fay prouver la tey nag moo tax daal mu jàpp ne kon fa mu bëgg a dem mooy fu sori rek gën a wane boppam ci li nga xam ne nii moo di làmb ji yëglikaay bee xëy tey ñëw seq ak moom waxtaan moom Bébé Diène muy xëy du wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bii nga xam ne nii day moom moo di sunu làmb dañ fay fekk nag ci nga xam ne nii moo di Angleterre Angleterre nag ginnaaw ba mu daanee majji majji ku mu dëkk kenn la nee na ki nga xam ne daal moo di Alioune Seye moom la bëgg a defanteel laale ak moom ginnaaw nag daan na ab problème li nga xam ne nii nag moom moo ñëw ci làmb ji jaxase ko jaxase sax àddina bi muy coronavirus ba moom léese ko wala boog record ñëw na dinu xamal ne day fin de saison boo xam ne daal bu ñu hypothéqué moo am ndax nag fi mu nekk nii day mbir ya jaxasoo na li leer ba leer nag ka nga xam ne nii mu di Doudou Faye di président des amateurs maanaam boog di président ANALS moom mu nga cay wax ne na daal fi mu nekk nii li am solo xanaa kay continuer di bëre ba ba muy taw Père Max Mbargane itam di ab chroniqueur ca Sen TV moom it mu ngay wax ne na daal xanaa fexe kon continuer saison bi bu mbir yi jeexee ba mois de août ki nga xam ne moom mooy njiital amal daal tamit moom itam mu nga xëy di wax lu mel ni kii noonu maanaam daal yokk saison bi bu baax a baax a baax parce que nag li ñëw nii moom te saison bi maanaam weer koor ga dugg kon bu ñu te jógee mbir ya fa wes xool nun koy yokke drapeau de l'État ba nga xam ne sax mois de juin la war a am commencé le si ba le 8 daa mel ni moom itam day fi mu nekk ni mbir ya mu ngi koy menacé maanaam jaxase ko ak ñàkk amam moom daa mel ni mënees na ko xaar wala boog lu mel ni ki noonu Matar Ba moom mi jiite sport bi démb woon na promoteur yi waxtaan ak ñoom ñoom ñi nga xam ne nag seeni xaaj dañ koo dugal ci làmb ji ba pare waaye ka nga xam ne nii nag moo jiite promoteur yooyu di Pape Abdou Fall moom mu ngay wax ci yëglikaay bi nga xam ne moo di leese ko Pape Abdou day ne na li leer ba leer moom ay perte énorme moom da am ndax nag lañ jotoon dugal ci xaalis yokku na ba tax na mbir yi ñëw demee nii moom moom jàpp na ne kon ay perte moom dina ci am mu mel ni ki daal kon coronavirus bi moom fi mu nekk nii lëjal jël nañu wit lan daan ñaan la ñuy ñaan rek yàlla na dem ak jàmm génn ci àddina bi bañ a tee dal kenn ñamu dal yàlla nañu wér ak jàmm waaye li am ba des daal yàlla moom dafa mel ni rek saa yu nu xëyee mu nuy wan ne mooy buur bi nga xam ne moo am kàttan te man ndax nag lii mu indi muy corona xamul ku am 1000 francs xamul ku am 10 000 xamul ku am milliard ku mu jekku day dal sa kaw moo tax nga xam ne yàlla rek ay yàlla yàgg maar. salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee chaque jour di ñëw ak yéen ci seen revue de l'arène di ànd ak kan Babacar sama mag sama xarit ginnaaw bi mu paree revue de presse bi ñu jublu si li nga xam ne ni mooy jàngat bi Babacar nuyu naa. ñaa ay Aïssa Faye ah yaa ay paate comme ni mu koy waxee sama rakk sama xarit maa ngi lay fay di la ñaanal jàmm di ko ñaanal internet yëpp waaw. amin Babacar ñu dugg ci li nga xam ne ni mooy waxtaan bi daal di commencé ak tey li suñu làmb andi muy waxtaan bu yaatu ak kii di Gaston Mbengue moom tam mu ñëw tey ji mel ni daa taxawee tànk jàppale ki nga xam ne mooy CNG parce que nee na tey ji hypocrisie dafa bëri ci làmb te bu fi Alioune Sarr jógee dina métti trop si si làmb ji dugg na tamit si diggante arbitre ak CNG bi nee ñoom lu ñu def c'est pas élégant xam nga ak euh, yeneen i yeneen daal Gaston daal tey ñëw na daal di soral mbubb avocat mën nañ ko waxee noonu ñii di waa CNG. waaw suñu papa Gaston ñu koy nuyu di ko parce que moom yaakaar naa tey ci làmb bu ci waxee war na cee wax su ci wax lu tam pour man war na cee wax ndax lu ci def la ba tey mu ngi ci ñu koy ñaanal yàlla mu gën fee yàgg te wér ah, nit nag am nga droit. wax sa xalaat ak ni nga jàpp ne mbir yi noonu la demee waaye li ñuy bañ ci wax ji rek mooy par parloo loolu daal xëy na des fois moom la ñu bëri dul d'accord am na lamb ji dafa am hypocrisie def ci bëri hypocrisie nag bu fekkente ne am na du lu baax ndax mooy naa feq yaakaar naa te naa feq moom du wax te yàlla tax du wax dëgg moom mi ko wax nag xëy na moom xam na lu tax mu wax ko wala am na fu mu ko teg yaa ngi dégg parce que xëy na la muy wax moo ñu ko gën a xam waaye li ci des tamit ci côté Alioune Sarr bi mu wax ne xëy na su fi jógee lamb ji dana am problème loolu ba tey avion la gis-gisam la waaye est-ce que la war a demee tamit loolu mooy question bi parce que yaakaar naa àddina ni ko yàlla mu moole muy dox di dem yaa ngi dégg tey da ngay nekk ci benn affaire yore ko di dund sax ba yàlla xëy jeexal sa dund te bu jeexalee sa dund du tax àddina taxaw day àddina day gën a continuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ci julli li ñu gëm mooy li ñu jàngal ku yàlla bind wala luy tooy di dox di wow Muhammad moo tax yàlla pourtant jël na ko fa ay at ay siècle ci ginnaaw te terewul àddina boobu di continuer di dox parce que am na ñu ko desal ci kaw suuf ba tey di ko représenté dox aw nam di dox ay waxinam kon yaakaar naa ne lu mu mën a doon nag muy dox ci àddina noonu la ko yàlla doxale Alioune Sarr ci làmb def na ci lu baree baree bare xay na lépp matul waaye nag duma ma d'accord ci ne su fi jógee affaire yi yàqu déedéet loolu moom ma ci parce que tamit am na ñoo xam ne ni mu ngi ñu ngi nekk ak moom ñoo xam ne nii am nañu xam-xam di ay sénégalais xëy nañ tey mën na fee jóge ñu yóbbuwaat mbir yëpp fu ko gën a kawe Senghor Sénégal bi mu amee indépendance 60 Senghor a ko jiite ba demam jot mu dem Abdou Diouf ñëw def la mu war a def dem président Wade ñëw def la mu war a def dem tey président Macky Sall moo fi ne te ëllëg day dem te bu demee itam Sénégal day continuer doon Sénégal dañuy ñaan yàlla li mu fi def bu keneen ñëwee def lu ko supérieur pour réew mi gën a neex waaw. waaw ah, dañuy jógee si ki nga xam ne ni mooy Père Gaston daal di seet ki nga xam ne ni tamit euh, mooy. Euh, Sitor Ndour di arbitre moom tey tamit mu ñëw waxtaan bu yaatu ci ak euh, sunu lomb mais tamit mu def ay révélation ci li nga xam ne ni nekk na ci carrière parce que gis nañu fi Tyson Bombardier mu ñëw tey di ñu xamal ni combat boobu amoon na jël mu ñëwaat tey di xamal ni diggante Baboye ak Tapha Gueye da ko arbitré pare mais escorté la ci mujjee dañ ko escorté pour mu ñibbi. arbitrage moom dama lay wax ne la moo gis ñoo yem parce que des fois euh, li tax mooy yaay àtte waaw arbitre nag dafa xaw a gën a metti parce que li tax mooy yow action ngay àtte parce que action day am nga war ko àtte sur le coup ndax ku ne gis na ne Tyson Bombardier kera yaakaar naa ne doyoon na waar daal xam naa ne moom amoon na jël tey nag xëy na moom droit de réserve boo ko jàpp nag nangam moo tax nangu kon ca wax tey nag Sitor génn na wax ci ne am na jël ka daan nag rajo bi tax nag moo tax mu xëy di wax ka daan nag xëy na moom waxu ko Tapha Gueye baaboy tamit ku ne gis na combat ba nam demoon parce que taxawaay lañ leen lañ doon xëccoo fii laay taxaw du ma taxaw fii ñu wax ñu të Sitor soufflé arbitre combat ba baaboy féete Tapha Gueye ginnaaw jàpp tànk yi mu daanu Sitor coow li jóg te ku xam waa Fass ak yooyu bis boobu defe naa kenn du ko fàtte làmb jooju kon yaakaar naa kera bu ne dañ koy escorté ba muy ñibbi waxuma la sax escorté kay waaye bu ñu mënoon fexe mu naaw dugg këram sax des na ko def mu risque bi ne ci métier wu arbitrage dafa baree baree baree bëri rek la ñuy wax mooy Sitor ak ñoom docteur Alioune Sarr ak Gaston bi ñu ñu ñu séq Sénégal rawatina ñu séq làmb nañu waxtaan quoi bu ñu ko defee rek pour man lépp mën na rafet quoi moo gën xëccoo bi tiraillement bi ak waxante bi loolu amul sens Aïssatou waaw Babacar amul sens mais tamit ñu dem seeti euh, record record moom tey ñëw ci li nga xam ne ni mooy fin de saison bi parce que nee na fin de saison bi est-ce que tey jii hypothéqué ñu ko parce que euh, événement yi ci des dafa bëri te day joué tam si clandrier lamb bi léegi nag ay acteurs ñëw nañu wax si ku nekk joxe na sa xalaat ñi nee nañ ñu prolongé ba ut ñi nee nañ ñu prolongé ba keneen muy taw ku nekk daal jéem nga andi solution pour ñu xool nu ñuy réglé décidu saison bi. waaw taal di bu tëyee tàkk ne lañ koy uppi xam naa moo tax. tey nag li ñëw yàlla indi dogalam ci jàmm ñi loolu nag bi mu amee am ay ndogal yoo xam ne nii état yi jël nañ ko ci réew yu baree baree bari sunum réew bokk ci lu baree bari ñu aj ko pendant un mois te defe naa it loolu xel nangu na ko mooy di aw yoon ndax moom feebar kenn du seenug daay muy tàkk nga ne dama cay dugg boo ca dee yaa xaru kon nag defe naa noon la feebar bi tamit mel moytu ko daa gën a wóor loolu nag tax na ba laalale sport bi ñu nekk mais làmb ji ñu féete rawatina bu ñu ko ajee un mois xam nga koor gi ñëw muy deux mois boo xoolee kon defe naa ne loolu ñoo ñu wax muy mag Max Margan muy ki nga xam ne nii moom mooy Saliou juuf ñoom ñoo ñu wax ñëpp defe naa lañ wax xel mën na koo nangu te bu ñu waxtaan amee rek ak duut fay lañ wax bu waxtaan amee loolu war a mën a ne maanaam ñu pousse saison bi ba nga xam ne tey dina. romb fañ ko daan tëjee kon comme mois de juillet maanaam yóbbu ko kon ba mois de août quoi fin août maanaam mhm. waaw. ba tey ci wàllu jàngoro jooju Babacar lëmbee àdduna kii di Pa Abdou Fall combat am Siteu ak Papa waroon nekk la cinq mu ñuy xamal euh, ci les ko que perte yi moom bëri na torop parce que fi mu tolloon ci préparation bi moo tax. waaw loolu moom du mën a la déet parce que tamit xam nga combat Siteu Papa Sow du combat bu ndaw te vraiment entamé woon liggéey bi yëpp parce que ñun am na lu ñu ci jot a xam moom Pape Abdou Fall ñu koy nuy di ko ziar ba nekkoon ci ay dernière kiom xam nga ñu jëmoon ci mbiru combat boobu kon defe naa tey bu ñëwee bokkaale ci ñu reporté dina yóbbaale xaalis wax dëgg yàlla loolu moom faw mu am euh, gis nga tamit xam nga ne dimanche ba ba bii paase rek la ma waroon am sox gàmmu géey kon moo moo lay wax ne promoteurs yi tamit affaire yi moom dinañ ko yëg waaye nag euh, comme la ma la waxoon démb rek fu ñuy jo fu ñuy feese kenn du fa jooyab góom loolu mooy la maanaam tey fuñ ne ay feebar boo xam ne day rey ay nit di rey ay milliers de personnes defe naa ne fexe ca mucc day ëpp solo xaalis dafa fekk ne ñoom nag xam naa ne laaja tax ñu yegg ci loolu sax mais ñoom ay citoyens lañu yu wóor a wóor a wóor ndax dem rencontré nañu seen ministre tutelle waxtaan ak moom kon defe naa ne loolu mooy li am ñu ñaan yàlla rek feebar bi jeex ba nga xam ne dinañ mën a continuer suñu activité Amin Babacar lañ siy teg ñu daal di dem seet ki nga xam ne ni mooy Dame Sène Dame seen war a bëre ki nga xam ne mooy Nandi Fall le 21 juillet incha allah moom nag ñoo na dëggal boppam neex nee na le 21 juillet incha allah na daan kii di Nandi Fall waaw dina daan daan di faal lool la daam seen wax waaw daam de mooy borom paquet yi wax yàlla nañ fi yàlla bàyyi ñuy nuyu Habib mi tëgg boobu combat xam naa ne daal lamb ju neex la nar a doon parce que li tax mooy eh, ndandi dafa ne ci série de défaite yu méttee méttee méttee te bëgg na wanewaat boppam te gis nga bëri ki dem waa Grand Yoff li ñu jóge donte Fourrière jàmbaar la daam seen itam combat bu mujj da koo ñàkk moo bébé julde kon defe naa tey am na lu leen di xaar ba nga xam ne ni daal ah yàlla nañ ko fekkee te tal ko mois de juillet ñu xool que fan la wànnet di mujj ak ay bëtam. Mm-hmm. Babacar dañuy jeexale ak ki nga xam ne ni mooy euh, Mame Balla Mame Balla bi war a dajeek euh, Mbaye Gouy tey moo xëy ci sunu lomb nee na day réclamer li nga xam ne ni mooy avance am moom lay laaj Assane ah, loolu day doy na waar loolu moom yéeme na trop. combat ba yaakaar naa bañ ne taxaw na ndax man mii bañ ko taxawalee maa ko doon présenté kere ca fu ñuy wax presse café ca ville. Mm-hmm. kon defe naa bu ñu toogee ba tey defe naa boobu ak léegi ay weer yu bëri jaar na fi kon nag yaakaar naa bu dee avance duggul moom dana yéeme combat nag buñ ko mënee wax moom ne taxaw na la koy dëggal mooy xaalis lu mu dee dee mbër dina am lu mu téye bu dee téewul nag ba heure bi moom yaakaar naa am na luy ñuul ca biir wala lees waxul am na loolu nag Assane Ndiaye moom mi tëgg làmbam déclaré ko yaakaar naa kon na xoolaat mbir yi wax ak maam Balla ndax bu génnee wax moom safa veut ça dire que sëpp la la ko bënn nga ca biir mm-hmm. xamuñu nag lu xew Babacar <laughs> ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñooy suivre seen revue de l'arène ni leen jox jég daje suba incha allah mais balaa boobu dañuy gërëm ki nga xam ne ni mooy euh, yàggu maar suñu célibataire bu mag bi di gërëm équipe bu Leewtoo TV bi yëpp mais tam di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñuy euh, suivre muy internet yi. parce que ñoom ñoo ñuy dooleel à chaque fois fu ñu munti nekk si àddina rek ñu leen di gërëm bu baax di gërëm euh, Babacar Touré dem gis naa ko mu naan namoon naa Aïcha waaw mais tam Babacar maa leen raw maa leen raw foofu di leen remercier bu baax mais Babacar tam ni di yox sa yóbbante ki nga xam ne ni mooy Amar Gueye di borom kër sama rakk nee na ba bu dalaa bëgg moom dalaa bëgg te yàlla tax parce que fu mu toll da lay suivre muy làmb muy revue de l'arène muy lépp loo mën a def rek moom mu ngi lay suivre di la topp comme ni mu ko ni mu ko bëggee daal nee na daal moo xam la loolu noonu mais gërëm tam Mado ak waa itali gi yëpp ñoom Tidiane Diagne ñoom na ñoom ami Amika sama jabar boobu ñoom Mami Sidibé ñu képp ku nekk Europe rek maa ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal yàlla rek yàlla musal leen ci ci jàngoro boobu noonu muccal ñu ñun ñu nekk Sénégal Amin Aïssatou Faye waaw kooku Amar Gueye moom defe naa su ma juum sax maa ngi koy gis ci Facebook bi kon Amar koo sopp sopp na la koo bëgg-bëgg na la yàlla na yàlla yokk sa jàmm yàgg sa soxna ak sa njaboot defal ko bépp doomu aadama di la wax ne rek ñun yéen tax ñu toog fii yaa ngi dégg li ñuy wax buñ neex na yéen a ko apprécier parce que ñun ñuy wax dégguñu suñu bopp kon defe naa ne yéen a ñuy apprécier di ñu seetaan di jën seen ay connexion amuñu seen fay yal na leen yàlla fay yéen ñëpp ah ñoom Benzema Deme Mam Modou Gueye taalibi Serigne Mbaye Sy Abdou yaa ngi dégg ñoom Mbacke Kebe fu ci waay mën a nekk rek ñoom Baara Kanji xam nga Ndongo Fall Habib Ndoy sama xarit ne ca États États-Unis fu ci waay nekk ñoom tuuti yaay Sarr xam nga ñoom ñëpp dañ leen di nuyu amuñu seen fay daal ñoom Fatma Fall amuñu ci fayu kenn encore une fois waa Algérie tamit benn waay bu ñuy wax Babacar nekk ba Algérie maa ngi koy nuyu di nuyu waa Maroc Tunisie fu waaye ne di internet di suivre rek ñu ngi bëgg ci yow di la ñaanal jàmm di wax encore une fois feebar bi yàlla na ko yàlla dàq ci àddina bi mu jeex tàkk tàkk barke yonente bi sallallahu alayhi di nuyu sama xarit Saliou recommandation te mu jóge ci waa ministère de la santé nañ ko topp di ko def nit ñu ko waxee ndax moytu moo gën a wóor di jaajëfal tamit le de la santé ndax effort yi gis nañ ko muy Abdoulaye Diouf Sarr ak sénégalais yi nga xam ne tey ay bonne volonté lañ yëkkati seen alal di ko dugal ngir jàppale état bi defe naa loolu mooy rôle citoyen kon yàlla na yàlla def Sénégal jàmm am fi barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam affaire bi du politique du Macky Sall du Karim Wade du Idrissa Seck ndax gis nañ sax Karim Wade di encourager Macky def ko defe naa loolu mooy Sénégal bu politique jotee nag ku ne ku ne am nga droit choisir la nga bëgg a choisir waaye bu nu yegg ci waxante lu ñaaw wala dara am ñu yaakaar ne Macky Sall wala wala nangam noonu loolu amul solo nañ nekk ay sénégalais 100 pour cent te defe naa ne loolu moo nekk si ñëpp daal. ñu leen jox